compliqué ci ñun du ma ne duñ ko mën mais dina compliqué euh, donc ADN la boo xam ne moo ñu jiitu moo ñu mag à partir de cet instant la man du ma gêné aw mu benn problème euh, ñu tong Pape Mokhtar ba mu yéeg ci kaw mu yéegee jël escalier escalier la jël escalier échelle ba ñu ko tegaloon pour mu yéeg mu bumax ñu ko finalement da ngay dem ba dafa bokk ci ñun cela veut dire quoi que ni euh, je dis pas Moustapha Diop ni Awa Diop Ndiaye wal dis Walfadjri nit ñi ñooy changé mais Walfadjri du changé moom changé wul c'est-à-dire tey maa ngi lay wax démb ne am na yoo xam ne en 2011 2012 boobu Ablaye wadd moo ne ci bopp réewu Sénégal moom lañ doon waxtaane tey jii boo ko tegaatoon dindi fu ñu doon tuddee ab Ablaye Wade def fa Macky Sall du changer dara cela veut simplement que ni le média moom fa mu nekkoon son positionnement une constance exactement euh, sa ligne éditoriale man moom ma jiitu moo jiitu awa moo la jiitu yow moomu de mhm. donc ñun amuñu benn pouvoir pour soppi ko ak lu ñu ci mënti amit ce sera la même chose donc pour man euh, du lu ma jaaxal trop euh, ça ne me choque même pas ça ne me choque même pas que ñi nga xam ne fii lañ daan ñëw Euh, ñu leen di invité tout le temps di leen jox kàddu ñuy yàq Ablaye Wade lu ko neex lu lu leen neex tey ñu wëlbatiku du ñu saaga man ça me choque pas ci benn problème ça du ça m'empêche pas de dormir gis nga ñi ñu fi mag tuuti ku mel ne Jean Meïssa Diop daf ñu ko daan nettali lu bari daf ñu daan wax ne eh, ñoom bi ñu nekkee Sacré-Cœur xam nga ñu dunduñu loolu mais ñoom bi ñu nekkee Sacré-Cœur eh, dañu Sidi Lamine Niass daf leen daan yónnee reer Pape Makhtar daf leen daan yónnee reer rédaction boobu Walf baree nii ñi quoi dañ daan yónnee reer reer bi ñu tuddee ko boolu siidi waaw nee na reer boobu am na homme politique yoo xam ne ils ont été ministre ci Wade li ma wax ni temps Abdou Diouf la. Mhm. nekk nañ ministre ci Wade xam lu ñu daan def bu ñu daan indi seen ay communiqué dañuy xaar ba heure bi bool bi war a ñëw. ci la ñuy yowal fajri <laughs> su ko defee dañuy dox ak seen dàll seen seen cerax ak seen i plastique ba agsi bu ñëwee jox seen communiqué xaar reer bi reeraale ko soog a dem et pourtant ñooñu euh, bi Wàdd ñëwee ci pouvoir ànd ak ñoom yóbbu leen ñenn ñi mu jox leen ay fonction de ministre ñoom ñoo ñu ay poste ministre ñoom ñoo gën njëkk a ku di saaga euh, mm-hmm. suñu mag yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon donc man je n'ai problème euh, tey jii ku nekk ci nguuru Ablaye Wade jël saaga jëmale ci Awa Diop Ndiaye wala Moustapha Diop man ça ça me choque pas sincèrement Mhm. ça me choque pas parce que dama naan euh, wax naa ko maam Biram waj démb rek démb rek maa ngi wax maam Biram ma ne ko tant que les gens ñi ngi am sa comportement la cette attitude la naan fii nga fii nga bokk naan da nga contre diw di da nga contre nguur gi di la wax lu lu naqari ça veut dire simplement que ni yow yaa ngi def sa liggéey. yaa ngi def sa liggéey le jour où ñu lay tàccu. naan la euh, euh, naan la li ngay waxal président Macky Sall moo fi gën a rafet et tout ça veut dire que ni y problème. et ñun ce qu'on fait euh, mooy très souvent du ñuy def attention trop ci loolu ce qu'on fait mooy euh, da ngay dégg par exemple ñu ne président Macky Sall c'est l'exemple que je donne depuis des semaines tabax na stade ca Diamniadio soo déggee fii ñi fi wax muy yow di man di awa ak ñeneen ñi fi toog ñëpp li ñuy wax mooy stade lu baax la c'est bien d'avoir un stade fierté la ñu am stade mel noonu mais nag am nañ droit ne stade boobu du suñ priorité loolu moom tant que ñu ngi koy wax ñuy saaga man kontaan naa ci parce que ça veut dire simplement que ni li ñu sant muy suñu liggéey ña nga ja mhm. mais mais dañu tolloo pamata foo xamante ne journaliste defe naa warul xool ku ko bëgg wala ku ko bañ foofu la ñu war a toll bul xool ku mer wala ku content wallaay da ngay xoolal soit quitte avec ta conscience xamal ne yow li ngay def yaa ngi ci sa logique xam nga Walfadjri lu tax mu neex a faral neex a àndal dafa am benn constance boo xam ne ñu ngi fii ñi féete de l'autre côté chaque jour dañuy jàpp ne dañu leen contre ñi féete nii jàpp na dañu ànd ak ñoom suñu féetee de l'autre côté la même chose revient même réprimande yi mooy ñëwaat mm-hmm. loolu ça montre à suffisance que ne ñun ñi ngi def suñu liggéey te li ñu sàlloo ne on est là pour le peuple on est du côté du peuple ñu ngi foofu te jugewuñ ci yotaam xam nga Sidi Lamine dafa am wax joo xamante ne chaque jour daf ko doon wax sooy wax euh, ci koo xamante ne falu woon na ba jógee fii bëgg jàpp kooku di ko attaqué mu ne la awa on tire pas sur une mm-hmm. wax jooju ci moom laa ko jàppee mu ne kooku intéressé tuñu li mu doon def def na ko dem na mais ki ñëw proposé ñu ne dafa ñëw pour soppi kooku ñëw indiwul loolu soppiwul lim ñu diggoon ci kooku ngay accentué wu di wax ak moom su ibbee ay noppam nekk nit war laa mën a dégg pour corriger ses erreurs pour man ñi nekk de l'autre côté ils n'ont même pas besoin de conseiller de ministre conseiller entre autres gis nga dafa am yenn médias yoo xam te ne war nañ leen doy baromètre war nañ leen doy des conseillers suñ doon sukkandiku ci loolu ils allaient rectifier leurs erreurs et corriger leurs erreurs mais li may wax rek jàmm moom jàmm rek lay doon sangal ba mu set jox ko mu lekk jox ko mu naan su féetee de l'autre côté ñu naan euh, naar bu loo doon àndal su fekkee sa démb su tekkee day bëgg nga fekkee moom su tekkee day bëgg nga dee loolu dong moom moo fi am. Mhm. parce que ñoom ñëpp kenn xëntewu ci woon kenn juddu ci avec une cuillère en or dans la bouche ñoom ñëpp dañoo xos lu loolu fierté la waxoon doon ci ñoom. pour pourquoi vouloir cacher seen démb bëgg ñëw tey indi benn arrogance benn mais ñi leen koy nangul ak di leen ko may ñoo ko def. ñi leen koy nangul ñi leen koy may man Pape Matar yoral ay milliards taxaw sama kanam sax safuma ensantuma nag yow maak yow démb ak tey doog a dikk je te rappelle pas. li waaj yow parce que dama mais je te rappelle juste pour que tu te ressaisis. Hmm. bu fekkee ne nag je pense que yow mii ak nasara xandanga këx nga neexoo waxal je me tais je me mets à l'écart et je te laisse faire tôt ou tard il va la gueule. après mu dellu siwaat bëgg dellu siwaat ci ñoom war nañu am kersa googu parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne defoon nañu li ñu mel. Hmm. Papa Tar xëy na bala ñuy terminer ci loolu gis nga dafa am benn euh, euh, tubaab bu may liir lu bari dafa bind quelque part mu ne journaliste yi ñu ne lan mooy seen liggéey mu ne leen mettez la lumière le peuple choisit son chemin c'est-à-dire que ñun waxuñu kenn tànnal fii tànnal fële dañu nekk ci selebe yoon mu lëndëm. ñëpp di xool fan lañ war a jaar ñun suñu rôle mooy taal làmp yi mu leer su leeree ku ci nekk tànnal fa la neex ñun suñu yoon newu ci gis nga dama lay benn affaire yàlla nañu fekkee ñun ñëpp yàlla may ñu gudd fan ak wér man dama gëm ne ëllëg su fekkee ne Ousmane Sonko wala Déthié Fall wala Khalifa Sall wala Thierno Alassane Sall moo gën ci Sénégal yàlla na ne yàlla na kenn ci ñoom nekk président gis nga su nekkee président lii ñuy dégg ci waa APR yi man gëm naa ne dinañ ko dégg ci ñoom man dama gëm ne man sama sama ambition wax maa ngi koy wax démb sama ambition nekkul ci homme politique yii may gis nii ñu ne ci réew mi ëllëg kenn nekk ci président de la république man ma dem di ko servir man loolu bokkul samay ambition yàlla nag moo xam je n'insulte jamais l'avenir mais bokkul ci li ma programmé ci sama vie bii ma nekk nii di d'ici quelques années d'ici quelques années je dis bien xaw ma nag su ma gënee jëm mag dem fii ma toll di servir kenn ci les hommes politiques yi fi nekk parce que j'ai choisi d'être dans un média boo xam ne je me sens très bien et li ma sénégalais yi di wax en retour moo ma gënal leneen lu ma mënti am maintenant gis nga su ñenn ci ñoom ñoo ñu nekkee ci pouvoir bi ñun ñu continuer toog fii ñu toog di def keppaar gi di nga di jóge fii di ñëwaat la même chose cela veut dire simplement ni constance bi aw Diop Ndiaye doon wax sànq c'est pas sa Diop qui est constant parce que man doomu aadama rek laa je fais des bêtises su yeewoo ba ni may tëddee ay bêtises laa nekk mais le média moom li nga xam ne ñun moom lañ ñu ko dénkee mooy fi ko ñi ko sos tegoon ñu def lu ñu mën ngir mu continuer di fa nekk loolu rek la du leneen cest à que ñun nootu mission mooy le média laa nga xam ne moom la ñu nekk ñuy def lu ñu mën pour fakka boroom ak ñam àndaloon tegoon ñu kon ne di ko fa teg jusqu'à ce que yàlla di ñu fi jële ñeneen ñëw ne fi di ko def maintenant en dehors de ça bu ñu génnee ce qu'on man ak yow on fait ce qu'on veut on fréquente qui on mais le média moom duñ ko yóbbaale fenn muy fréquenter kenn wala comme dit Awa muy sukkal kenn wala mu koy jaam man soo gisee ma jotee ak nit si l'espace public généralement c'est pas ma personne man tout ce que les gens disent sur ma personne il arrive ma koy lire il fa il arrive ma koy dégg il arrive que sama ay mbokk sax gis ko yónnee ma ko gis nga dérangé wu ma mais quand tu parles fajir Walfadjri ça dérange parce que li Walfadjri représente moo tax loolu rek la mais ñu nekk arbitre bi ñu nekk euh, arbitre bi comme euh, comme comme disait journaliste ça ça date pas du siècle dernier mais waxuma gis ba léegi nii ba fi ñu toll nii euh, je trahis pas un secret mais le DG de la RTS ci boppam daanaka doo toog ñaar wala ñetti semaines yoo xam ne du woote fii. ne diw ci waa RTS ñëw na wax ma nangam ak nangam ak nangam yónni ñoo xam ne ñoo koy ñoo koy waxal ñu ñëw waxal ko loolu mooy la réalité li am. mais am na boo xam ne Pape Matar moo doon arbitre <laughs> mais bien. vraiment. Euh,